voilà à tous euh, téléspectateurs yu télévision Prestige TV Salam ñu ngi di euh, nuyu di ziar bu baax garage bu Thiès euh, xam dimanche élection regroupement chauffeur yi dans la région de Thiès Nous ko doon amal nous fi ci Thiès Nous nak ñu ñew xol ñi nga xam également transporteurs ñu wax ñu rek naka la ñu gisee élection boobee ak ci Yacine Diop mi nga xam ne tey moom la ñu tabb ngir mu rek jiite groupement chauffeurs yi euh, fii ci diwaanu Thiès naka lañ ko gisee ak yan mooy seen attente ci ki nga xam ne donc moom moo di ci Yacine euh, ci loolu nag ma ànd ak euh, sama caméraman Moussa mu fas yéene ma topp rek ñu dugg ci biir garage bi ngeen xool kenn ku nekk yan kàddu lay dénk ki nga xam ne moom moo di ci Yacine. waaw. waaw soo tasalaati garage bi. xanaa daal mu liggéey rek lañ bëgg ndax liggéey bi dafa métti woon trop ci dëkk bi kenn ku ne fu waaye taxaw yàpp loolu moo métti woon ki fi nekk ne nekk na fi dem doon na jéem a liggéey waaye xëy na yàlla tudd ko waaye nag ku fi nekk léegi li mu ñaan bëgg li mu gañe daal yàlla def ko ci ndam li bëgg mu jàppaleen ci bu baax mooy liggéey liggéey bi dox bu baax ku ne gis sa bopp chauffeur beeg jaaykat beeg mécanicien beeg yëpp kenn ku ne ku ñëw gaz daal xam ne fii gaas bi am na changement Pape Dione suñu rak suñu rakk la ñoo ko yor fii ci gare bi suñu rakk la ku dëggu la ku nungoo liggéey la ku jàpp njàmburam la loolu la xam ci moom. am ngeen yaakaar ci moom. am nañu yaakaar bu baax a baax a baax moo tax ñu sonn démb pour mu jël ndam li waaw loolu daal moo leen bëgg ci moom mu jàppale leen bu baax ku ñëw ci gare bi la xam ne gare bi am na changement bu baax a baax a baax loolu lañ bëgg ci moom. papa ji noo tudd. ak lan ngay représenté ci garage. Samb man coxeur laa ci gare Thiel. ma ne coxeur laa ci gare Thiel. xalaat si élection bi nga xam ne nominé nañu Yaas Diop. waaw éli nañu bi élection bu rafet mu jaar ci yoon bi mu gañee ñiy dund ci oto ñëpp kontaan nañu. waaw parce que xam ne nit ku jub la soxlawul mu kenn te li métier bi da koy jaral lu nekk pour mu dox am nañ njort bu rafet que ni lépp dina dox bu neex yàlla parce que biñ fi nekkee. nit ñu gisoon nañ seen bopp gisoon nañ seen bopp xëy na erreur moo amoon ni ñi am lu ñu def Sénégal ni muy fale réew mi bu ñu fa jëlee regretté nañ ko parce que loolu moo indi nga dem élection ak candidat yow nga nekkoon fi jóge fi ñëwaat élection ak ki nga tasel mu nekk douze bureaux de nga gagné douze yëpp donc ko ni ñu xam na ni yaa tane li fi newoon li ñaan daal yàlla na ko yàlla na ko jig jig ñu yàlla ñu ñu jàppale ko ba lépp sotti liñ ci yaakaar yàlla na ko yàlla def yàlla nag mooy sottali mais li nga xam ci moom naan jub lañ ci moom ak rigueur kon foofu mu nekkoon nit ñi ko seen yàlla na fa egg yàlla buñ ci am bettel daal. ban yaakaar nga am yaakaar ma am ci moom mooy yaakaar bu rëy bu dee ci niñ ko xamee woon danañu bég daal dañ kontaan lépp luñ doon xalaat ñu naqari woon yaakaar nañ dina ko faj ci faj bi nag mooy état moo di jàppale. les autorités ñoo ñu mën a jàppale parce que nag. asalaamaaleykum. ba dol ba dollo ba dollo mënul jubbanti moroomam du dëgg ba dollo mënut a jubbanti dañuy jàppale bu ñu jàppalee daal ak fi ñu dina dox mais bu ñu seetaanee si coow mooy bari rek. jërëjëf sëñ bi. salaamaaleykum sëñ bi nuyu nañ la. noo tudd ak lan ngay représenté si garage. waaw man maa ngi tudd Ibrahima kase Baye Fall Kassé waaw fii laa nekk ci mbaar taximaan taximan la euh, maa ngi nekk si garage bi tudd Ibrahima Kassé waaw Guèye moo fi nekkoon Mamadou Guèye moo ni yoroon garage bi ñu dem élection yàlla def Pape Diop gagné ko ca Yacine nag nekkoon na ci garage bi ku miin marodage bi la ku xam terrain bi la vraiment am nañ ci moom yaakaar lool lool lool lool waa Thiès yëpp fu dul tund Thiès yëpp ñu ngi koy xaar ci problème marodage bi parce que Thiès benn problème lañ am muy Maradas garas Thiès cette place yi mënuñoo liggéey kaar yi mënuñoo liggéey moo tax ñu mobiliser wu fal Pape lan ngeen yaakaar ci mu defaral leen ko tey. waaw li ñuy xaar ci moom bëri na li ñuy xaar ci moom bëri na surtout Maradas bi ñun daal Maradas bi moo ñu soxlaal moo ñu soxlaal Maradas bi daal lu ci ëpp moo ñu soxlaal parce que chauffeur yi ne fii ci biir garas Thiès bari na mënuñoo liggéey waaw. leg bu organisé won ba maradas bi client di dugg ci garage bi dinañ ko sant dinañ ko gërëm waaw. yan conseil ngeen koy jox tay ji ni wow nomination. waaw mu góorgóorlu góorgóorlu xam ni mom nekkon na fi xam na terrain bi yalla nako ci yalla jàppale waaw barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam li tamit yalla lay njiglayam don ci njiglay ñun ñi nekk fi waaw lool dal la ko ci xaar. jërëjëf sëñ bi. sëñ bi tudd ak looy représenté si. Ndiaga Mbaye laa tudd

mu gën a góorgóor loolu rek laa koy conseillé wax dëgg yàlla ndax jàmbaar la woon. voilà dañuy def wolof bi d'abord après di chauffeur taxi fii ci gare routière Thiès. Uh-huh. waaw waaw. waaw. waaw. Euh, waaw. Uh-huh. ah Thia Yacine ci moom mooy mu liggéey rek suqale transport. ndax euh, bu liggéeyee. du moom rek moom mooy liggéey ñun ñëpp ñooy liggéey dañ cee war a jàpp mu jàpp ci dëgg la nag moo falu moo jiitu ndax ndaje mu ne dina am jiit kër gu ne am na borom kër jàkka ju ne am na élimaan moom nag moom la yàlla dogal euh, mu jiitu nekkoon na fi xam na ni mu demee ki fi nekkoon nit remplacer ko fi amoon na yéene waaye yàllaa dogal loolu nit ñi gis nañ que ni seen liggéey neexu leen ah weddi nañ ko teg nañ fi Pape Diop Pape la ko war moom mooy mu liggéey ñu jàppale ko ñu liggéeyandoo jariñoo muy bien comme quoi. waaw su ma ko doon digal ay conseil daal pour liggéeyam gën a mu wut ay nit ñu dégg ñu fulawu ndax Pape sax moom ci boppam ah, li ko fal dëggu ci la fulawu ci la kon nag na wut staff boo xamante ne nii mu gouvernement bu ba jaaroon na fi dafa mu jaaraat fi gis mu liñ naan du du du xam nga ji masa sóob la moom dafa dellu siwaat une deuxième fois kon nag pour mu jaar ci yoon wi yoon wi war naa mën a yomb ci moom na xool ñu dëggu ñu wér mu ànd ak ñoom liggéey ñu soqali garage bi ñëpp jariñu parce que bon suñu jafe-jafe majeur fii actuellement ñun gare routière bi client moo fi amatul dañuy am problème clientèle ndax chauffeur transport boo amul client am na problème client yi buñ jógee ailleurs wàcc seetuñu ci biir garage bi su ñu jógee ci biir dëkk bi di dem am na ay yeneen garage secondaire yoo xamante ni ñooñu transport irrégulier la ñuy def clients yi la majeure partie foofu la ñuy jëm ca ñooña garage bi presque même taxi en ville dangay xëy le matin taxaw fi deux heures de temps ou trois heures de temps soogay benn client wu téeméer waaw. waaw bu ak cette place yi la même chose navette bi doxul. soit Njaareem wala Touba Dakar cees yooyu yëpp doxul parce que clientèle moo ñawul Ndiaga Ndiaye yi ku fi yëpp dem Dakar boo dellu see euh, di nga fi def deux jours soog a jóg ay Njaareem ak Touba moom ak i Louga yooyu moom waxatuñ ko ñoom dematuñu fa. mu ngoog mbokk yi yéen a ko déggandoo yéen ko gisandoo également gis ngeen nag euh, ma ñëwoon ànd ak euh, Moussa mbay ci garage bu Thiès dégg ngeen kàddu yi nga xam ne rek euh, chauffeurs yi yekkati nañ ko transporteurs yi également naka noonu yëkkati nañ ko jëmle ko nag ci ci Yacine mi nga xam ne actuellement moom moo jiite chauffeur ak transporteurs yi regroupement des chauffeurs Euh, fii ci diwaanu Thiès élection bi nag ñu ko doon amal euh, ci euh, dimanche bi gis nga attentes yi nga xam ne moom la chauffeur yi di xaar ci ñoom kenn ku nekk attentes yi nga xam ne donc yaa ngi ko doon xaar ci Yacine ma àndoon ak Moussa mbay sama caméraman jox leen rendez-vous prochainement mbokk yi jërë ngeen jëf